sallallahu alayhi wa sallam nee na laylatul xadri na ko dàkk ci fukki guddeeg juróom-ñaar wala fukki guddeeg juróom-ñeent wala ñaar fukk ak benn wala ñaar fukk ak ñett wala ñaar fukk ak juróom wala ñaar fukk ñaar wala fukk ak juróom-ñeent sax laylatul xadri dina ko doon xam mën nañoo def laylatul xadri tey weer wi feeñ suba jot ñu war ñu war lépp ay addis la yoo xam ni sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ni ci tabaraan yi <coughs> la preuve bala may continuer foofu xare Badar ci ban date lañ ko defoon xam nga tam lañuy wax fukki guddeeg juróom ñeen mais fukki guddeeg juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mooy gën a mooy gën a lëng na ci lañ defoon xare Badar at moomu laylatul xadri bi kon xanaa xam nga fukki guddeeg juróom-ñaar moo nekkoon laylatul xadri kon date bii nga xam ne moom lañ moom lañ yore di ko def laylatul amul dara lu ko gën a wér te xam nga lan moo ciy merakkal nag seetlu ko bu baax li ma lay wax <coughs> dat yooyu yëpp guddi gum mën a doon guddi alxames lay doon suba jot di ajum téeméeri at mat nañ mat na ko bañ ko commencé appliquer ak léegi mus na ñëw mooy guddi ajum xanaa loolu miracle la dat buñ la ci wax rek bu ñëwee ma ngay dal ci guddi ajuma alxames ci guddi lay doon tey li ci gën a doy toujours day tóol noonu la ko xasida boobu wax day tóol du nekk mukk mukk guddi boo xam ne day yem toujours day tóol faaw ñett juróom juróom-ñaar juróom-ñeent dat yooyu ci lay tontu kon <coughs> liñ junj ci ginnaaw koor xam ngeen ne dafa bittar ñu ko koor jaar na ci ñetti étape ñetti changement li ki nga xam ne julli jaar na ci ñetti étape ñetti changement ñetti étape yi julli jaar xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bi muy gàddaay Màkka di ñëw Madina boobu xam ngeen ne julli comme julli tukki ak julli teew ñoo bokkoon ay rakk ñaari rakk lañ daan lañ daan julli ñaari rakk lañ daan julli moo daan nekk jullit teew ak jullit tukki waaye <coughs> bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam suñ borom jox na ko ndigal loolu sax ci tàmbali la waaye bu ngeen seetloo sallallahu alayhi wa bi mu jógee Màkka ñëw Madina julli na fukki weer ak juróom-ñaar yoo xam ne jubluwul Màkka jubluwul ci Kaaba bi dañ koo jox ndigal muy jublu baytul maqdis ba siif yi commencé kontaan ci julli di lool daal naa ñii kay baax nañ ndax ñoom ñun ñoo bokk xeb la waaye bi ma fukki weer ak juróom-ñaar la ko suñ borom xat naraa taqallubu wajhika fi samaay fa la nu walliyannaka xiblatan tardaahaa daal di ko fa walli wajhaka shatral masjidil haram waaye su maa kuntum fa wallu wujuuhakum shatrahu ñu ngi gis yaa ngi xool rek di bitir si ñi ci kaw asamaan waaye danañ la tànnal xeb la boo boo kontaan boo gërëm léegi wëlbati leen seen kanam ngeen di julli jublu kaaba fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi bu ngeen di julli na ngeen jublu ak kaaba kon boo seetloo julli jaar na ci première étape benn changement am na ñaareelu changement bi mooy bu waxtaan julli waxtu julli jot ku nekk da ngay dee sa morom ah sa waay julli jot na sa waay julli jot na sa waay booba de ba saxaabi bu ñuy tuddee Abdullah ibnu Zeydin al Ansaari moo tudd guddi suñ borom wan ko waaju sol complète bu vert waaju yor jóolóol mu ne ko jaay ma ko mu ne ko loo koy doyee mu ne ko damaa bëgg ñu koy fëgg bu heure julli jotee kooku ne ko am na lu ko gën mu ne ko li ko doon mu ne ko akbar allahu akbar allah ala salah hayya ala akbar allahu akbar laa ilaha illa allah loolu moo gën jóolóoli nee na daal di toog ab diir daal di koy waxaat benn benn allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salaati hayya daal di hayya ala salaati hayya daal di xat xaamati salaat ñi ne benn yoon la ko ne ñaari yoon la ko wax hayya ala salaati hayya ala falaah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah bu njëkk bi mooy nodd bu ñaareel bi mooy liqaam abdullah ibnu zeyd ne bëri ci nelaw yi ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko géntug dëgg mi ngi noonu demal wax ko bilaal ndax moo la gën a foor baat mu ànd ak jëlaal di ko ko sànni yëg ci kaw jàkka ji keroog la noddu la la nodd la noddu feeñ kon nodd du wax yu bu yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ci ab saxaabi la ko suñ borom woon mu géntu asalaatu xayru mina nawmi li ko indi ci julli biir yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwul day daal di wàcc ñëw ne yow yonent bi julli julli jot na bilaa mu noddee toog ab biir ba fajar si jeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwul bilaal wàcc ñu ne ko yonent bi day nelaw bilaal daal di yéeg ci kaw ne asalaatu xayru min an nawmi asalaatu xayru min an nawmi bilaal moo inventé loolu moo waral ñu dugal ko ci noonu lu ko waral sallallahu alayhi wa sallam nekk yabalee mu nekk al musarri ul kabir saxaaba yi ñu ko booleel yépp dañu da ci am ñu def ay musarri on ñoom dañuy tëral sharia ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax saxaaba yi dañuy moroom sallallahu alayhi wa sallam neen ni ma yàlla tànne ne ma tànnale jamono ne la ma tànnale ay sahaaba kon gis nga wax naa la ñaari étape yi nga xam ne julli jaar na ci ñetteelu étape bi mooy bi sallallahu alayhi wasallam masaan bi sallallahu alayhi wasallam masaan julli ku ñëw ci mbooloo mi da ngay laaj sa morom ñaata ràkk la yonent bi julli benn wala ñaar wala ñett wala day benn wala ñaar wala ñett nga gaawantu julli ràkk yooyu daal di dab yonent bi noonu jaar nañ ci de ba saxaaba bu ñu tudd Seydina Muaz ibnu Jabal moom moo ne su ma ñëwatee du laaj kenn damay ànd ci julli gi fu yonente bi sallallahu alayhi wasallam sëlmale ma laaj li may def lu mu doon mu ne ko dootuma laajoo bu ma ñëwee fu ma la fekk damay ànd ak yow boo noppee ma àggal sallallahu alayhi wasallam xat sanna lakum Muaz fa hakaza fasnoo Muaz tëralal ni leen sunna roy leen ko loolu moo indi pratique bii ñu def boo fekkee ilimaan di julli foo ko fekk rek da bu sëlmalee nga daal di xam liñ la rawe woon nga daal di àggale sa julli <coughs> gis ngeen détails yi ca àgg <coughs> comme loolu tax ñoo jóg imaam bu bu dee barab sàngam ci la toog tënk la boo di jóg da ngaa war a jógale kàbbar wala war a jógaale kàbbar ak bu fekkee dañ laa raw imaam raw la ba noppi ñoddi la nga nekk imaam nga war a àggaleel boole ni yooyu yëpp xam nga ne téere yi leer la waaye comme loolu tax ñun dañuy bëgg jël bañ a jël temps bu jàll waaye ala kulli haal wax nañ ne la koor def nañ jaar na ci ñetti changement ni julli jaaree ñetti changement wax nañ la ñetti changement yu julli jaar léegi koor yan ñetti étape la jaar sallallahu alayhi wasallam bi mu jógee Màkka ñëw Madina booba ñetti fan par weer lañ daan woor fii kulli shahrin salaasata ayyam ñetti fan par weer lañ daan woor kooru tam xarit xam ngeen ni mujjantal gi sallallahu alayhi wa sallam la tàmbali woor fukkeelu fan ci tam xarit dañ ko nee juif yi dañ koy woor ndax nee nañ ci la yàlla musaloon yontu yàlla Moussa mun leen maa leen gën a yey ci Moussa ba déwénee danaa ci boole juróom-ñeenti fan yàlla dogal ca déwén sa fekk fi yontu sallallahu alayhi wa waaye loolu ginnaaw gi la waaye nee naa la première étape bi julli jaar bi koor jaar mooy bi sallallahu alayhi wa sallam jógee Màkka ñëw Madina weer wu ne ñetti fan lañ ci daan woor daal Alxuraan wàccee na yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquun sallallahu alayhi wa sallam ne kat kon seen faratay koor ñëw na kum neex woor ñetti fan yee kum neexul nga bàyyi ko ndegam farataal leen ci weeru lëmm ngeen du ko woor kamaa kutiba alal laziina min qablikum foofu wax yu bare bare na nga fa la'allakum tattaquun ayyaaman ma'duudaat fan yu limu rek xoolal weeru koor bi mu tàmbalee rek léegi ñu ngi commencé naan fi ñu toll nii mat na une semaine ak matul une semaine ayyaaman ma'duudaat kon boo seetloo woor na ñetti fan ginnaaw bi weeru koor daal di tàmbali waaye bi aay jooju wàccee bi mu àggee ci wa alal laziina yutiiqoonahu fidyatun ta'aamu masaakiin ñi nga xam ne bu ñu wooree dañuy sonn loolu duñu am kàttan man nañoo bañ a woor te bis bu ne ñu leel miskin mudd booba ku ku amul kàttan wala nga jàpp ne daal di métti rek da ngay bañ a woor leel am miskin mudd waaye xam na ne loolu suñ borom ne nag fa man shahida minkumu shahra falyasumhu weeru koor bu ñëwee bu mu fekk ñuy dund na nga woor kooku kon imposé nañu. ku yàlla def àggoo ci mage lool ba attanoo koor imposé nañ la weeru koor fu agse nga woor bu dee kii tukki wala ki feebar feebar bi dana wér bu wéree mu fay kii tukki tamit bu tukkee mën naa a woor waaye bu weeru koor bi jàllee mu fay waaye mu des ki mage xam nga ne Seydina Anas ibnu Maalik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanal lool mu am téeméeri at mujj na mage woor waaye bu weeru koor bi di tàmbali day togg ndabal ñam loo xam ne yàpp ak